comme d'habitude rek euh, ñoo ngi nuyu ñëpp euh, tey moom dootuñ présenté te fii ñu nekk di commune Guinaw Rail noor mais tamit di poste de santé Guinaw Rail Nord euh, comme niñ koy defee chaque année bii di sunu deuxième année sunu deuxième année bi nag bu ma waxee ne tey fi ñu fi ñëwee si heure bii sunu mbégte la ndax nag ñun amuñu lu dul sunu yëf tey sunu yëf mooy poste de santé Guinaw Rail Nord ñu ñëw fekk fi ki nga xamante ne Massa soxna si euh, mu accouché fi bebe bu jigéen bi euh, ñu jël ko comme bébé de l'année euh, mais nag si bañ a guddal dañuy remercier ki nga xamante ne moom mooy sage-femme bi di madame Ndoye madame Ndoye ñu ngi koy remercier bu baax a baax a baax a baax ndax nag bi mu amee rek la def appel bi bébé bi tamit yal na lépp lu ñu yaakaar euh, yal na ko am mais di wax ne kontaan nañ trop si bés bi marraine bi amul lu mu deful waaye nag euh, dañ koy ñaanal moom it lépp lu def si bés bi yal na ko ko bés bi fay voilà ndax gis nañ taxawaayam waaye damay ñëw tëjee si kaddu monsieur le maire xamna wo nañ ko legui ndax nenañ ko nak bébé bi sa commune il faut nga ñëw jaar fi ñu ñaan monsieur le maire lu ñu mun rek mom la lu commune bi munit mom la di ñaanal momit lim bëgg ci at bu bees bi yalla nako ko ko defal euh, lu bu mu gis dara lu ko lu ko yakal yalla na fi tok ay mandat mandat ba doyal ndax contane nañ trop ci li nga xamantene mom lañ am contane euh, nañ encore une fois merci beaucoup. man bu madame la maire wa sax waratuma wax mais dama contane li lay dama contane mooy bébé bi jigéen la te ñun ñëpp ay jigéen lañu te madame la maire dafa bëgg jigéen dafa bëgg jigéen rawatina jigéenu ginnaaw raay bébé bii yàlla na dund am ndey ak baay ñu ngi leen di ñaanal yéen ñëpp man sama xol dafa sedd vrai. parce que dafa foor ci man dafa rëy parce que moom bi ñuy ànd dara du dara ba tey dara di dara mu jël bis bi ne ma yaay marraine bi jàpp ci parce que su ma waxee yaay marraine bi daf ma may doole may ma fit ndax xam na ni man aw ma doole googu. antanu ma waaye su ma riiree rek xool ko mu daal di jaaxle daal di ne ma am defal lii defal lii waxal lii waxal lii te dama koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may gudd fan. may ko weer di ñu dund ba suñu ànd bi suñu borom di ñu def ba ñuy weer di ñu yi parce que nit ku gore la nit ku baax la nit ku bëgg ginnaawraay la Fatou dafa bëgg ginnaaw raay duma ko tàyyi di wax. bënn 2005 faatu li mu def ginnaaw raay te booba xamul sax luy maire yi xamul sax groupement de femmes dajale mënul dajale ñaari nit. muy takk dàll di takk ceinture di dem service d'hygiène di wut ay ordre javel di dugg ci kër yi jàpp sinistre yi moom ak ñoom Kaaba ku fekke démb mo neex a waxal te man dama fekke démb man daf may wo sax ma bañ tong ci mbott yu fa tong ci bir yoy su ko day xey fajar ma xëy démb li ngay nelaw yep ndax keur ga la indone mané ko ñewuma parce que yow da nga da nga bëgg yoy mu ne ma man maam dama yërëm nit ñi mësa a daw ci social faatu dafa mës daw ci social ba tay li yalla indi ko tek ko ci loxom lima ko ni ginnaaw raay yow ñepp la bëgg gis ngeen ginnaaw raay kenn bañul Adja ndjay parce que man xamulen ma ci geewu politique bi man suma ma rek moma ma man fu ma dem moom laa àndal ci ginnaaw raay mais damay dajek ay nit ñuy wax ci fànjaay loo xam ne damay ree te loolu ñuy wax moo am ci moom Ndiaye yal na la yàlla may gudd fan may la wér jubóole la ak sa jëkkër ji bàyyi la sa kanamu njaboot bébé bi nag kontaan nañ ci gis nañ yaay papa ji mm-hmm. waaw yal na dund am nday ax baay kontaan naa vraiment ñu gàttal ko mm-hmm. madame ñu ngi leen di remercier bisimilahi rahmaani rahim maa ngi nuyu ku nekk sa tuux ak sa sant di leen di dalal jàmm dinaa leen bisimilah Nous avons koy le bu baax a baax et de remercier encore une fois madame la maire parce que ce c'est pas une première fois que koy def fait. daf ñu bette ak surprise ñun xalaatuñ ko sax te yàlla def na ba mu ñëwee madame la maire ñëw na indil na valise pour euh, bébé de l'année bi mais l'année prochaine Inch'Allah, nous dinañ ko préparer ma ne ko ñu nous def nga waaye nous ni dinañu dugal suñu loxo ci biir duñ ko seetaanee noonu mais nous koy gën a ñaanal madame la maire de même que monsieur le maire sen taxaway gis nañ ko ci poste bi di leen ñaanal yàlla encore une fois lépp lu ñuy yóotu yàlla yombalal leen ko yàlla may leen ndam si fii ci ginnaaw xay segam commune de ginnaaw xay Nord moo leen fal en tant que maire de ginnaaw xay Nord donc yàlla na leen ci yàlla may ndam franchement ñun gis nañu seen taxawaay ci poste bi mu bu ñu waxul bébé de l'année kese am na yeneen ak yeneen yoo xamante ne def nañ ko ci poste bi donc loolu aussi dañ koy rafetlu lu bëree bëree bëri di ñaanal maman bi nga xamante ne moom moo waxal ñun ñëpp ñu daje fi donc yàlla may ko gudd fan weex gi yaram doom ji aussi yàlla def ko mag bu am ñam yàlla bàyyi ko fi bañ mu doon kilifa ci kaw kilifa yi lépp lu ñuy ragal yàlla buñ ko gis yàlla ñu yàlla may ndam sur tous les plans ci barke Salati Fati damay sant rek euh, poste bi sant personnel bi yeb di gërëm badjenu gox yi di gërëm relais yi euh, monsieur le maire nak mom ak madame le maire ñom luñu wax rek duñ ci doyal ndax yaguma fi mais machallah sen loxo sen xalaat lepp euh, génné wuñ ko poste bi lepp luñuy def rek ñu ngi ci diso ak ñun lepp lu bax luñu am andil nañu kon ñom tam amuñu sen fay yaay ji toog tam yàlla dogal doom ji am teraanga bi yàlla na teraanga bi sax yàlla def ko mag ba mu toog jëriñ ay waajuram ñun ñëpp ñu fekkee. rek maa ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam di jiital nuyoo bi monsieur le di ci teg madame le maire Fadj Ndiaye euh, euh, Fadj Ndiaye lii mérite la parce que vraiment daf ko defoon daaw kon bu yàlla defee ñu fekk ko mu def ko ren du ñaan yàlla lu dul di ko ñaanal mu yàgg koo def. parce que vraiment euh, li may faral di wax ne nit loo teg sa loxo doo ko jeex ñun loolu la ñu yàlla defal te damay faral di wax ne bëri nga ci mbartal puus mu dem puusul mu dem xam nga nit di nga xëccoo dara fekk fal nga sa bopp yàgg na mais ñoom dañoo fal seen bopp te élection ñëwagul parce que lu dul dëgg rek leneen lay doon te vraiment ku ne xam na ne monsieur le maire madame le maire li ñu def ci ginnaaw raay gi ñëpp teg ci seen bët masu fee am maire yi fi jaar nag bari na franchement parler mais ñom liñ fi liggéey vraiment fay am kon duñ def lu di leen ñaanal yalla lepp li nga xamne bëgg nañ ko ci ginaaw raay gi yalla leen ko yalla defal lepp luñu ragal yalla buñu ko gis lepp lu bëgg ci ginaaw raay yalla leen ci yalla may ndam di ñaan yalla bébé bi yalla na ko yàlla def mag def ko magam l'islam mu dund ba yor ay wajuram ci barke yonent bi ma ngi sant ñep di ñep assalamu alaykum wa rahmatullah merci monsieur le maire. délégué ziar na yàlla yàlla nangu ñu bébé bi madame Ndiaye madame Ndoye na ngeen def waaw ma xool bébé bi damaa feral nag moo tax bëgguma ko ma wàll. soxna si tudd nan la. ah. Mariama Diallo xanaa ki mooy borom kër gi. Euh, jigéen la.

Ah, di remercier peut-être l'initiatrice ndax man du man mako initier madame le maire fan Ndiaye moko initier euh mom rek lañ ci gëreum mom lañ ci sante mok marraine bi maam mari da ñu sante len sante vraiment tout le personnel en commençant par madame Ndiaye madame doy ak ñi fi nek ñep di len ñaanal jamm yalla na fi yalla def jamm di gërëm conseil yi fi ñëw ak ñëpp yi nga xam ne vraiment ñëw nañ pour def euh madame le maire c'est laal yaa ñu ngi leen nuyu c'est ta fille en tant qu'illustratrice ñaanal yow it nga am nga am ci voilà yéen a ngi gis ni lii la waa poste de santé di liggéey ah lii da lañ jàppalee li nga xamante ne moom mooy bébé de la bi kontaan nañ ci trop encore une fois